kii du soxna Wah, waaw doon na fa. ci loo nekk. waaw yaa ngi am jàmm. waaw ñu gak sant alhamdulilah alhamdulilah. ça va bien. pourtant mën nga romb fii de. fii nga toog tàng na di. non dara damay toog rek pour xam nga ak koor gi nii des fois day metti da ngay toog tuuti pour temps bi xaw jël temps après ga rek. Ah, <laughs> mais yang ci rek. Euh, yow sax xam suñu Euh, parce que kérok bama la féké ci kër gi ñu doon waxtaan dafa melni dama waxon yow amo dara de. dara mo comme borom kër. non non man la amo go borom kër. <laughs> waaw waaw da légui nak dafa am ci ben ben classement bu mo la bëgg a boole maanaam ci ben comme ben manam genre euh, ki dal bu mo la bëgg boole quoi fu mo la bëgg boole nga am fa jëkkër xamal li ma lay wax bëgguma nga am jeune. bëgguma nga am jëkkëru xale comme xale bu ndaw nga da ngaa war a am jëkkëru mag parce que gis nga xale yu ndaw yi am na ku ma ci takkalool am na ku ma ci takkalool kër Seydou Kébé day jàpp jabar ji ñuus guddi leer laa leer di ñuus bëccëg te ñoom ñun ay mag lañu ñun gaa ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi def ñu ngi def buzz man xam naa ne ñun ñu ngi def buzz mais pas buzz bu ëpp buzz warul ëpp te booy dañuy def buzz bu mu ëpp ndax lu leer laa la wax de kee ñoo takkaloo te booy nag loo ci xamul <laughs> danoo xaw a doy waar ay mëq doom lañu yor ñii ay tànku nag ñii ay lento ñii ay mbool mbolde wóorul ñun nag mag ñi danoo xaw a doy waar te yu jëkkee lañu yor boo weddee laajal sa mag sa mag mu ngi am doos ngi am dose normale <laughs> dooguma la sax waaye gis nga man xam naa sa yéene ci man ndax soo toogee fi di ma conseillé mm-hmm. di ma wax lii danga maa bëgg rekk wax dëgg yàlla waaye mm-hmm. yàlla dafa dogal mm-hmm. gis nga sëy moom na la yërëm rek bu la yërëmee mën laa yor rek jeex na waaw waaw waaw waaye nag ku nekk sa choix man mm-hmm. nag jeune laa choisir xam nga jeune laa luy doy sa mag a ngi nii lu mu la magee daa bari moom xoolal bàyyi te bàyyi nga koy defal bagage muy mu ngi am é eh, bàyyi nga koy servi normal léegi nag man dama bëggoon comme bàyyi mu ngi servi sa mag nga lay servi ma jël la yóbbu la kër ga. ah man jeune laa préféré. Eh, moo eh, xoolal xoolal wuyu ma <laughs> mais nag euh, ma wax la benn affaire tamit ma dolli la ci Il y a bu nek sen cœur euh l'autre gosse mm, mm-hmm. Abdou defal attention ci waaw defal attention ci parce que man nit suma la gisé rek du mais bay ci façon gouta bu waaw Boy, bi ma teud buntu buntu djibsar djibsar waaw sama grand bi dëkk fi djibsar

bàyyi ko jox juróom benn fukki junni trois cent mille xaw ma nag bàyyi fan la jëlee trois cent mille ndax booy bi da koo dig xaalis booy bi daa dig xaalis bàyyi trois cent mille francs la yóbbu ci baay man bàyyi lu fanaan ci moom ci man lay yendu bàyyi moo jël trois cent jox ko Abdoulaye waaw pour Abdou retirer benn xaalis bu bari jox ko ci bàyyi dégg yirum xaalis rek jox ko booy bi na tir rek moom juróom benn fukki junni bàyyi fu muy jëlee trois cent mille koo xamam jox na ko trois cent mille de hmm. bàyyi jox na ko trois cent mille Serigne Diané lan ma waxoon. da nga demoon Sinthiane. ci genre affaire <laughs> du ma nax du ma nax ndogu a jot. Ah. baax na ne dinaa. Eh, sëriñ boobu du wax cee waxi caaxaan de sëñ Diané. sëñ Diané lu mu la wax am na kooku musul wax caaxaan bu dee sëñ Diané moom dugal la ci làmmiñam loolu am na. la ilaha illallah bàyyi moo war a ku mu gis rek fat la te fii dëkk bi léegi koo fi tingom dalay day booy man moo waxoon la xam ne daykat